mbokki jullit yi mbokki réew taalibe yi mbokki réew mi mbokki àdduna si yëpp nu ngi leen di nuyu te di leen te di leen xamal ne noo ngi ci bis bi nga xam ne mooy bis bi jëkk ci safar ni nga xam ne ni lañ ko baaxoo di ko def saa boo xamee ne egsi nañ ci bis boobu ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul dana am ay kàddu yo xamne da koy jëmele ci xeet wépp jëme ko ci taalibe yëpp jëme ko ci julit yëpp loolu tay yi moy li nga xamne mom moom la cheikh mohammedul Muntaqa al khalifat al am li taifat al muridiya ayyadahu allah wa nasarahu mom la bëgg jëme ci taalibe yi bis ni tay e xam ngeen ne ci kàddu yi muy bëgg wax dana ci wax soññee soñi taalibe yi nammaat pas-pas yi ba ñëpp kenn ku ci nekk fum la fekkone nga baaru faa bàyyi koo jëm fu ko gën a kawe dana ci wax itam lépp loo xam ne dafa aju ci projet yi nga xam ne moo ko tax a jóg muy yi nga xamante ne moom la naal fas yéene koo liggéeyal lislaam fas yéene koo liggéeyal Cheikhul Khadim loolu lépp da ngeen ko dégg ci biir waxtaan wi kon ñi ngi ñaan bokki taalibe yëpp ak bokki jullit yëpp ñu déglu waxtaan woowu eh, te dégloo ko seen xel ak seen xol te fas yéene itam taataan ci ba jëriñu ci ni nga xam ne moom lañ ci war a jëriñoo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي بكي طالبي بكي إمام بكي سنبي مانينو ينيب دي ياسا سنو تشنت سنو برام ياسا سنو تشنت ci sëriñ bi ci diggam ak boromam di yaasa sunu cant ci sëriñ bi diggam ak jaam ñëpp danoo amaat tawfeex ju réy ñu fekkeewaat teertal weeru safar bii nga xam ne mooy sunu weer ñun ñi nga xam ne am nañ tawféqi sunu borom boole noog sëriñ bi ndax bis bi nga xam ne ci la boole cantam yëpp bis boobu ci weer bi la nekk muy bisu fukki fan ak juróom-ñett ca safar kon sama kilifa yu baax yi nu jiitu di di gën a fàttali gën a fàttaliku bis bi ci xéewal gu réy yi nga xam ne am nañ ko ci kon bis boobu mooy sunu lépp tey ëllëg ci biir fàttaliku bis boobu nag ak waajal ko fas yéene fas na cee fas yéene cee gën a yeesal sunu cant dolli ca rek lu nu ca mën a dolli sunu kem kàttan loolu moo waral kàddu yi ñuy bëgg jëmale ci mboolem mbokk yëpp yow bokkal sëriñ bi ñu di tudd sëriñ bi mbokki jullit yëpp yi nga xam ne suñu boom mooru boole bokk réew mi waaw te muy kilifay diine yi fàttaliku bis boobu nag te lépp ñu jëme ko ci ak cant dafay mel ne kon war nañ cee gën a yeesal na suñ lépp gën cee yeesal sunu jayante li tax ñu di ci jiital yeesal sunu jayante sëriñ bi day lépp ndax léppi diine ngi ci moom mu diinal islaam mu liggéey ci liggéey bu rëy yitte juwee jooju nag nga xam ne ci liggéey liggéey bu rëy lépp rek mi ngi jóge ci wéetal boromam kon sëriñ bi fi ñoo gis ba fiñ ko noppee gis بولي ولك دار بروما لول يورنتي غنتي بي نيف ميغا خامني موم لاكو بروم جوخني مو نيكون سي ديغنت بوب رك بولي ولك دار اك ويتل بروم ديكو جامو اك بغي يورنتي بي jeex ci takk di ko liggéeyal ni mu doon jaamoo boromam noonu la doon liggéeyal yonent bi kon sëñ bi moom nëbbuwul leer na naññi ci lu wér suñu borom rekk fi nekk waaye jaamu na boroomam jaamu goo xam ne benn jaam mënu ko weesu liggéey la yonent bi liggéey boo xam ne benn jullit mënu ko weesu loolu moo tax mu liggéey ci lislaam liggéey bu rëy buñ mën teg bët kooku mooy sëriñ bi ci biir jaamu yàllaam googu ak liggéey googu mu doon yonent bi ci liggéey lislaam liggéey bu rëy boo xam ne amul benn liggéey bu ko mën a weesu kon kooku mooy sëriñ bi noo gën a fas yéene jox bis bi àqam ndax sunu lépp ci bis boobu la jógee la ca dolliku nag mooy jéem a jox sëñ bi akam sëñ bi neexut a jox akam waaye nu xam ne noonu mu doon jaamoo boromam doon ko liggéey la yonent bi loolu rek la nu fi bàyyil kon war na noo xam loolu ci suñu bopp bu baax waru noo taal dara lu loolu mun fi mun fi bàyyil loolu nag nu nekk ci na ko na ko bëgg ci noonu lot nañ si ndax moom fa mu nekk des koy xam rek fa mu nekk des koy yëg waaye mel na ne jaam lott na ca yéem a nekk foofee mu nekkoon waye nak sañ nañu ko jima xam nekkoon ci lim bëgg itam sañ sañ nañ ko jëm parce que yéene doon deug deug julit parce que yéene doon deug deug taalibe la jé sun kem kat na sun ba waxe ci alquran wal asr inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq bunu xamé fofé sëriñ bi nek dégg li alxuraan wax yaakaar na dañu doy ab soñu ak lu lot lot lot lu nu ñak ñak solo nu jéem son kem katan arab bii ba bu koy wut borom rek la àndal wër na diir kan xamul ci fu mu nekk di wut barab bi rek fu gën a wéete fu mu gën a mën a wéetale boromam gën ko faa mën a jaamu fu mu gën a mën a topp gi gën mën a topp yonent bi gën ko faa mën a liggéeyal loolu rek moo tax moo taxoon mu wut barab bii kon lu nu doye di doye di lu nu ñakk ñàkk xam lu ñàkk dégg war na noo xam barab bi lan moo war ci barab bi barab bi nag ñaar rekk fii wute jariñu yàlla may tawfiq ñu ñooñ sëriñ bi àndoon ak moom bàyyi fi seen seen njaboot ak ñeneen ñi nga xam ne am nañ tawfiq ba ñëw fi seen bopp fas yéene dëkk sëriñ bi ñooñu yaakaar naa ne war nañoo xam nañuy war a jëriñoo dëkk bi war ñoo xam it nañuy yàqale seen bopp ci dëkk bi kon ñi dëkk ci dëkk bi ñun ñëpp kenn ku ne ci nun na xoolaat boppam na teen xool sëriñ bi fa mu nekk xoolaat boppam xool barab bi ba xam lan moo yaakaar moom la yaakaar ne mooy yàlla ci barab bi barab bi la ca gënoon a la ca gënoon a baax gënoon saa noppale gënoon noppal mooy dëddu adduna mu gën a gaaw ci nu mën a jariñ fi barab bi waaye nag du yombul waaye nag njub mooy buntu lépp lu baax ku ne ci dëkk bi sa xel warut a dem ci lenn lu njub ngir sédd ko barab bi ngir sédd sëriñ bi nan góorgóorlu bu baax ci góorgóorlu ci njub am nañu yàlla taw feexal ñoom mën nañoo rafet njort ne dañoo jóg jaar ci yoon wa waaye waaye lépp taw yi tawfeex leen fi andi waaye xamuñu àqi barab bi te bala noo mën a jariñu ci ci barab bi dañoo xam àqi àqi àqi barab bi képp ku fi nekk war ngaa góorgóorlu sa gëm kàttan ci ñëpp لكي يبارن لول لكي يبارن لول لكي يبارن لول لكي يبارن لول لكي يبارن لول لكي يبارن لول لكي يبارن لول لكي يبارن لول لكي deko sam sa kem katan baye xel sa ye sa kem katan loo mën a aar ci dëkk bi lenn lu xeetoo ko sabaan nga di ci jéem a aar sa bopp sa kem kattan te jéem a xam sa wartiif te nekk ca daa di wax ne ab duna bu ci bànneex doon am kon mooy toog ba nga xam ne wóor yaa ngi ci nekk ci sa wartif te wartif nag damay wax ne jaamu yàlla moo ci jiitu kon nu góorgóorlu suñu kem kattan nekk fi njub nekk fi njub lu góorgóorlu suñu kem kattan nekk fi nekk fi lislaam lislaam laaj suñu laajee suñu kem kattan nu góorgóorlu nekk fi ak taalube ak taalube moo ñuy defaral suñu lépp ak taalube suñu diine la ñuy jëkk a defaral defaral nu sunu jikko sunuy jikko sellal la nu sunu xel nu boole koog yitte yitte woo yàlla rek la ci sunu kem kàttan bu lool doyee sunu bu loolu nekkee sunu itte nekk nekk fii ci nekk fii ci dëkk bi sëñ bi ne su ko jox ak xam waaye kon nu def ci sunu kem kàttan te la ci des من نعم خير مدلني وخم لا رافين جوت خير مدلني سون بام دانو غارسن دوك توفيق سيرين بي كي سون لب سون لب يوان ني في نيو تبار بي تخلينا جوك نيو خامني كي لا سي برام بي مولن مولن يكاتي موتاخ ني ني نيم سي برام بي kon ñi fi dëkk buñ góorgóorloo ci yoonu waa yoon woowu yi nga xam ne li ma wax lépp mooy saratal mustaqim rek la ci suñu kem kattan yàlla tegul kenn ja benn jàmm lu la ci suñu kem kattan rek la ci mën nañu mën nañu caa gàttandu la ci la la la la la nga xam ne mooy mooy lépp nag góorgóorlu nekkee foofu nekke noonu ci barab bi ba noppi nag dooloo sëriñ bi am yaqin ci sëriñ bi. xam na sëñ bi lu mat a faggu faggu na ko fii ci dëkk bi ku fi nekk nekk fi nag fa war a nekkee xéwal yëpp dana la fekk liñ faggu ci xéwal ñi fi dëkk mën luñ ko dara te lépp ngi ci yoon bi kon dara waruñoo jaral nu ne fi nu di fi nekkee di di di am yaakaar ne mën nañ fee nekke di jariñoo neneen nu dul nekk fi ni fara nekk loolu moo ñi fii dëkk doon naa ko junj ci fan yee fii ku fi ñëw te wut te bëgg njariñ dara waru laa kenn waru laa tax a jóg kuru sëriñ bi te loo fi yaakaar muy dëgg ci yow sëriñ bi tax laa jóg nga ñëw diis diis diis diis ko soxla gaaral ko sa bopp teewloo loolu bu dëggoo la nga fa la ñaan da ko am ñaan nag kii ñaan ñetti tegtal la ñaan borom du ko gàntu danay fajal sa soxla fa saasa wala mu dencal la ko ëllëg nga ko gën a soxla mu fayal ko foofa wala mu dindi la loo xam ne dañ nga moo gën moo moo moo moo moo gën ci yow lépp kon ñaan gi dañuy faja sa soxla wala ñu denc la ko fa gën a soxlaa wala ñu dindil la loo xam ne dañ nga moo gën moo moo moo moo la gënal lépp loo mën a am kon ñaan du neen kon ku fi ñëw bu la fi dara indi dafa fi sëriñ bi rek andi ñiñ fi fekk si buñ soxla dara nañ dooleel sëriñ bi sëriñ bi fàggul na leen lépp te lépp nga ci ko yoon bi waaye nag jaar fa nga war a jaar ñi fi dëkk nañ nañ nekk nañ jéem a nekk ci li ñu war a nekk lépp gàttal yiw yiw àdduna yëpp gàttal leen ñi fi ñëw nañ jaar fañ fa war a jaar bu leen dara ca tax a juglu sëriñ bi bu ñëwee na leen sëriñ bi yëkkati ak yu mën a am buñ ko teeloo te ñaan ko fi ñi noonu rek lay mën a demee kon ñi ne dëkk ñi dëkk ci dëkk bi nan doyloo sëriñ bi te nekk ci leen war a nekk nekk ci leen war a nekk nag jaamu yàlla moo ci jiitu ak liggéey sëriñ bi sëriñ bi te yàlla tax nekkaat la ca dellu la ca dellu ko nag mooy nun kenn ku ne la say lay sa métier la nga xam ne mooy sa yaakaar moom ci nga yëngatu nga di yëngatu tàllal si loxo suñu borom la nga ca la nga ca la la la nga ca bëgg la nga ciy wut lépp day gàttandu lépp day yomb lépp day barkeel ci suñu diggante nag ci suñu suñu suñu jariñeente ñun ci suñu bopp ku nekk ci njub sàmmanteeg sa diine sàmmanteeg sa taalibe koo amee àq ak jox nga ko ko koo amee àq jox nga ko ko kenn du loolu ci yow te ku ne da ko mën ku ne dana la mën a jëriñoo loolu mooy tënk bi rek lu war a yomb la bu ko seetee noonu lu war a yomb la dëgg la jafe na lool niru na jafe waaye lu war a yomb la ndax nit ki mucc rek la bëgg nit ki jàmm rek la bëgg nit ki teraanga rek la bëgg nit ki xéewal rek la bëgg lépp ngi ci yoonu njub ak diine ak taalibe noonu rek la demee eh, lii lii may waxee nag jublu woon ci dara laabire rek laa ci jublu nasiha waaye addiinu nasiha nasiha dong laa ci jublu ak la ma yéene sama bopp lépp ma yéene leen ko la bëgg sama bopp lépp te yëgale ma la may bañal sama bopp lépp ma bañal leen ko la may ragal sama ci sama bopp lépp ma ragal leen ma ragal leen ma ragal leen ko loolu dong nan la demee nasiha dong la ñàkk xam rek waaye ku xamoon doo dëng mukk ku xamoon doo ñàkk diine mukk ku xamoon taalibe rek ngay doon ndax yiwa nag yiwa laaxira rek ci nekk jàmmi àdduna ak jàmmi àxira jàmmi àlaxira ci loolu rek la nekk ñàkk xam rek moo fi nekk waaye ci loolu waaw li nu bëgg li doomu aadama bëgg ak teraanga ji ko yàlla defal lay tax du ko ñàkk moo ni loolu rek ndax doomu aadama yàlla suñu borom teral na ko ba noppi man xam teral na bani aadama teral na ko ba noppi waaye nag lu mu gën a xam teraanga ji gën koo sàmm te sàmm gi nii rek la doon dëgg dëgg julit doon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ko baax ni ko yiw ci loolu rek nga mën a sàmmee teraanga jooju nga xam ne yàlla ko daloo ko bindal waaye bu lool loolu sabaan bi teraanga jooju day ruus day dellu gannaaw ba nga gën a suufee ni doomu aadama màgge day dema dema dem ba yées ma waaye ni doomu aadama am bu fonkee teraangaam jooju àjjana rek la ko jëmee euh, la ca dolli ko nag euh, moo bis boobu bis bii di ñëw noo ngi nanu ko noo ngi fàttali mbokki bokki taalibe yi bokk yi nu yi nu bokk sëriñ bi ñu dul nu tudd di tudd sëriñ bi fàttali ñu am tawféexi dëkk ci dëkk bi maa ngi koy fàttali ñëpp bis boobu yi di ñëw bi muy bisu cant kenn ku ne loo xam ci teraanga na nga ko jëmee ci dëkkandoo yi ak gan yu yiw yi fi ñëw kon nag eh, alhamdulilahi rabbil alamina eh, waa dëkk bi ñoom yaakaar naa ne loolu xamal nañ ko seen bopp xam nañ seen wartif la eh, ndax gis naa ne sax ñi dëkkul ci dëkk bi ñëpp ñi ngi waajal bis bi di gàttandu gan ñi ñi ñi ngi koy indi ci biir dëkk bi ñi ngi gàttandu gan ci yoon yi di bëgg leen a teral loolu lépp alhamdulilah ñi ngi ko ñi ngi koy waajal kon noonu rek la bis bobu nañ ko waajal ñëpp xam ne liggéey Sëñ Tuubaa bu rëy bii waxuma la sax num nun waa Sénégal waaye jur yëpp ko bokk jur yëpp ci yëpp ci yariñu kon nak ñu bis bobu bisu cant gi bu baax baax la ca doliko nak modi euh, fi fi ma tollu ko xam sama bop la samay kilifa daanañ ma jëwee ne damaa bëggul dara waaye ma ne leen bëgg naa dara li ma bëgg a jafe loolu daanaa ko toll naa fekk samay kilifa te loolu mooy mooy am li ma bëgg jafe rek waaye ci biir loolu dafay mel ne bëgguma dara ndax taluma ko te xaw sama bopp dara tolluwaay bi nag tax na alhamdulilahi rabil alamin maa ngi sant sama kilifa yu baax yi ñoom yi ma jiitu woon ah di sant sunu borom di sant sëriñ bi ndax man xam naa sama bopp waaye li ma indi fii du man indi moom sama bopp kon nag lu may dolli muy gën a joxe sama bopp rek loolu rek la may dolli eh, loolu nag moo tax samay kilifa ñi fi jaar ñëpp liggéey nañu liggéey yu rëy liggéey yu rafet ci Cheikh Sidi Makhtar mi ci bu la fi ko a ak bu la fi def bu man ci man waaw dama war a daal ah, xanaa laxasaayu bu dëgër jóg ak yitt ju rëy waaye nag eh, foofu damay daal dellu saat nag ci cant gu rëy gi nga xam ne maa ngi koy sant bokk yi yi jiitu mooy mooy bokk sëriñ bi maa ngi leen sant cant gu rëy ndax wàccoon nañu man wàccoon nañu man mel na ne am nañ ci man yaakaar mel na ne am nañ ci man ak doyloo loolu rëy na lool te mënoon leen ca bañ a fekk mu doon mu doon sama tënk boo xamee doo xam boo xam doo xam na may doxee waaye alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant ci maa ngi leen sant cant gu rëy xam naa li ñu ma defal kenn ku ne da nga ci am sa wàllu bopp boo xam ne yaa ko moom yoonu kenn nekku ci sa wàllu bopp woowee la ci ëpp la ca gën la la ca gënal mooy sëriñ bi kon nag képp koo xam ne am nga ci man yaakaar ngi sëriñ bi am nga ci man ak doole ngi sëriñ bi am naa cant gu ah ma dellu si nag ci taalibe yi ñoom it day wax dëgg yàlla wàccoon nañu man gis naa yaakaar yi gis naa dooloo gi wàccoon nañu man xam naa ne maa maa des maa des waaye lama ma waxoon fee la ma waxoon fa sëriñ bi maa ngi nii nag xaw ma dara ci sama bopp doonu ma dara ci sama bopp mënu ma dara ci sama bopp booba laa noppi waaye daal ñi ma bokk sëriñ Tuubaa wàccoon nañu ko man mboolem taalibe yi du bokk sëriñ Tuubaa wàcce na ñoo man kon maa des gannaaw nammeelu sama borom jumtuwaay yi benn jumtuwaay ëpp ci gënu ci xam-xam man moo tax yàlla na toon na ci mu bëgg xam-xam doon naa ci jéem sax bi mu des agsi fii moo dëgg ci man sama jikko la musuma xalaat mukk ne jataay bii danaa fi nekk sama téeméeri xel mosu ko xalaat waaye nag dama xam gi ma xam xam te yéen ñëpp njariñ moo taxoon ma bëgg xam-xam doon ca def samay kem kattan ci ca dama ci man ngir ñëpp ñëpp mën a xam ba ba ñëpp mën a jëriñu loolu moo ci laa nekkoon gannaaw moo tax bi nga xam suma bi agsi nañ fii te yàlla dogal lii ci man la ma jëkk xalaat naa def jàngukaay boo xam ne njaboot sëñ Tuubaa gépp maanaam ñi nga xam ne ñoo jëkk ànd ak sëriñ bi seex yi ci gàttal waxuma la sax njaboot sëñ Tuubaa gi ñu tudd leen tudd waaye kon seex yi seex yi yëpp naa jàngu boo xam ne eh, kër kër kër seex bu ne sa dana ci dana nekk ci jànguwaay jàng jànguwaay loolu mu xalaatu naa ko lu jiitu léegi moo tax bi liy amee sama xel demul ci dara lu lor loolu rek la moom amoo soxla seet ma sama xel dellu ci dara loolu fas yéene nag guur taxaw ci jàngu boobu sama kem kattan nag xaw ma tey laa xaw ma ëllëg laa waaye la ci sama kem kattan moom maa ngi ci ci laa fas yéene nekk alhamdulilah bi laa ne ba fan yu njëkkee rek laa ko wax. sant nag njabootu Sëñ Tuubaa gii nga xam ne ñoo ci biir ñoo ci biiram te alhamdulilah yàlla xéeroon leen ci xam-xam ñu nar nekk nu euh, euh, nekkandoo ci woon ak ak lu ñu ma ca jiitu lu ci raw-raw euh, noo ci nu nekk ci woon nekkandoo ci woon loola ak Cheikh mi sama xalaat yëpp ci lu lu jëm ci liggéey bi jiitalu ma kenn teg ko ci loolu ñoom laa daal di waxtaanal dañ dund ñoom laa waxtaan ak ñoom xam leen di nga xam ne mooy sama itte jooju mais nañ ci daal di jublu seet na muy mën a amee loolu nag ñu ngi ci ñu ngi ci bala gi léegi alhamdulilah rabbil alamin ci taxawaayu Cheikh Bass mi plan bi noppi na man daal sama lépp dëgg la liggéey bi yaatu na waaye euh, laaj yeneen yeneen yi ci aju moom kooku maa ngi ko doon doxe te yaakaar na dama ko gën a mën ah, waaw li liy dëgg dëgg dëgg yitte yow liggéey bi moom mooy mooy mooy mooy jàngu ko loolu loolu maa ngi maa ngi maa ngi ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ci wàll yëpp waaye nag lii moom ma liggéeyal ko ci euh, mu daje mu daje mu daje itam ak ak ak ak bëggam. moo ko wax wax na ko bàyyi fi moom wax ne lu sotti la ba noppi noonu na ko bil Mustafa libéral quddus madrasatan biha yazul ala wal jahl wal kamadu noonu la ko waxee ci ci xasde goo xam ne laqad jaakum la ko tënkiir loolu lu leer la kon xëy na man alhamdulilah rabbil na naa sant yàlla am la loolu tawfeex la ci man wax na man amu amu amu amu amu beneen beneen gannaaw ngërëmal sëñ bi li nga xam ne moom moom moom lay wut tey ak ëllëg eh, lépp ci xam-xam laa ko laa laa laa ko laa ko laa ko ci bëggoon a liggéeyal kon nag eh, mboolem bokk yi nga xam ne mooy moom njaa bokk sëriñ bi ñu di di ñu tuddi du sëriñ bi ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi muy taalibe yi maa ngi leen di yëgal yitte jooju ñu ngi ci woon nag fa tabaarakallaahu taxawal nañ ko tàmbali liggéey bi rek mu des plan bi noppi na li mu laaj sax bari na lool waaye sëñ bi dara bariwul ci moom ci moom dañ ci nekk rek dañ ci nekk nekkal sëriñ bi rek dañ ci nekk nekkal sëriñ bi rek am nañ ci xel mu daal am nañ ci rafet jot gu mu sëkk kon Euh, incha allah itam euh, bis bu mag bii bu jàllee euh, ba weer wi jeex dugg gàmm wi yaakaar naa ci ay bis ga nga xam ne moo mooy ay bis gi mujj ci gàmm wi yaakaar naa ne yitte Seex Bas Seex Bas mi ak ñi mu ko àndal yaakaar naa ne bu boobaa dana tax nu mën a tàmbali liggéey bi waaw kon na ko ñëpp xamee noonu aw ma sikki sàkk ne ñëpp ànd nañ ci man waaw ndax liggéeyu sëñ Tuubaa noo ko bokk te te xam naa ne yéene nañ ma ko waaye nuñ ma ko yéene nag yéene naa leen ko yéene ju kon noo ko bokk. yëg yi bi nu bëgg a liggéey sëriñ bi nag eh, xam a ca jiitu ndax liggéey amul benn liggéey bu rëy boo xam ne mën naa sotti ci loolu xam-xam. rawatina liggéeyu sëñ bi bi fàggul nañu lépp fàggul nañu lépp waaye eh, booy boo nu ñemee ko nag xam ne itam nag an faw faaw nu yëg ko fok faut que nag fàggu nu yëg ko waaw il nu yëngutu il faut que nu yëngutu jëm ci xam-xam waaw fàggul nañu lépp waaye il faut que nu jëngu yëngutu jëm ci xam-xam jëmee ci ba ba ba ba ba ba fa fa mu ko fa mu ko fa mu ko bëgg fa mu bëgg màgg fa nu yóbbu ko fa yóbbul ko ko fa nu yóbbul ko ko fa waaw waaw dëkk bi boobu kenn ku ma jëkkee wax loolu dama jàpp dama dama ne la daaree xam-xam yi jiitu woon muy Madina Munawara foofu la si naam Ilman Malik foofa la foofa la foofa la teg ak boo ak ak muy Madinatul Munawara muy Baxdaad muy Basra muy Masra eh, yooyu yooyu foofu kaggu yi foofu la nekkoon waaye eh, sama yitte yéese lu ma yéese lu ma ko yitte yitte joojee la àggale yitte jàggale woon foofu xam-xam sama yéese lu ma sama yitte yitte joojee maanaam li ma gënoon a ñor sax fi ba tey ba waxaguma ko mooy yaakaar ji nga xam ne am naa ko ci gone yi ji nga xam am naa ko ci am naa ci ko am naa ko ci gone muy gone yi nga xam ne njabootu Sëñ Tuubaa gi ci ci ci ci ci ci bokk ci njabootam njabootam gis naa ci ay gone yu ndaw yoo xam ne ñëpp ci xam-xam lañ jëm lañ jëm bëgg xam-xam lool te fa tabaarakallaah booy ba seen xel daal ndax suñu bo suñ Tuubaa faggul na leen seen xel yi lu ñu bëgg lu ñu bëgg am ci xam-xam dañ ko am kon euh, maa ngi ci gën ñaan ñoom gone yooyu nañu seen xel dal nañu góorgóorlu ci loolu bëgg xam googu nañ ci def nañ ci nañ nañ ci def seen lépp nañ ci def seen lépp euh, di ñaan nag ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa ñun ñëpp na jóg nag ci gone yi góor euh, gën leen cee soññ gën leen ci taxaw bool di te leen ci dimbali loolu moom liggéey bi ñuy liggéey Sëñ Tuubaa loolu bu na ci loolu jiitu nañ jóg ci njaboot gi na ñëpp njaboot di taal muy muy muy mu mu mu muy ñi nga xam ne dañ dañ dañ leen tudd sëñ bi seen njaboot na ñëpp jóg ci taxaw njaboot bi ñu jàngi xam-xam bokki taalibe yi ñëpp nañu jóg nañu jóg xam ne xam jàng mënut a ñàkk. dañoo am ñoo xam ne dañu daa mel ne dañoo jombale seen bopp dañoo jombale seen bopp xam-xam defe ne xam-xam jombul kenn ñëpp war a jàngi. waaw taalibe yi dañoo defee ne rek dem liggéey joxe addi dé ñëpp war a jàngi du yàq dara euh, jàng ak xam-xam wërsëg bokkul xam-xam moom day njëriñeel boppam te dara mënu ko wedd xam-xam dara dara mënu ko wecci dara mënu ko wecci kon nañ ñëpp nañ ñëpp nañ ñëpp nañ ñëpp nañ jàngi waaw du ñu yàqal dara du yàq suñu taalibe du yàq suñu murit du yàq suñu dara day tax nu gën a wëlëre rek njaboot sëñ Tuubaa gën a rek ndax luñ njaboot sëñ Tuubaa luñ bari bari bari bari xam lu ñu bari bari bari xam-xam ñoo jiitu ci yar ñoo jiitu ci teggin ñoo jiitu ci jëf ju baax ju mën a doon ñoo bëgg ñoo jiitu ci jikko yu baax ñoo ñoo jiitu ci loolu lépp xam-xam day day day day day defar ak a du yàq dara kon taal bi noo noo noo noo yem képp na ñëpp góorgóorlu ci njaboot gi ñu jàngi jàng moom dana daan dem ba xalaat ci sax ku la ñaan suñu moo doxoon diggante nit ñi ak jàng xam-xam xam jàng ngeen dëgg la euh, am na ci yoo xam ne nag fa tabarakalla colonial euh, si mënu leen mënu mënu mënu ci woon dara ba sëñ bi fa feeñ feeñ ci seen biir mënuñu ci dara euh, waaye nag teq nañ ci lu bari nag ndax ñi nga xam ne dañu jàpp ne jàng tubaab rek la ñu war a def ba noppi di jullit na seen xel dellu si ni ñu jàngee tubaab yitte ji rek am solo ni ñu jàngee tubaab ba ak ca fañ càggee buñ ko boolee woon rek ñu jàng seen diine noonu lay demee bu fekkente ne nag xam-xam ne adduna bi mat nag xam-xamum diine bi mat kooku mooy jëmm ju wér te xam ne njaboot gi ni ñuy jàngee tubaab nii la ñu mën a jàngee arab nee nañ mën a jàng gën a xamal seen diini waaye xam am sa di xam la nga war a xam ci diine xam la nga war a xam ci tubaab nga boole ko waaye loolu texe la loolu loolu boo àndee ko njub ak diine texe adduna ak àllaxira la fii ñuy dem ci bis ba nu nu jàng alxuraan eh, boole nañ ko daal defee rek jàng alxuraan xasida eh, maanaam loolu loolu nag kenn ku ne taal bi bu ne eh, bu ko bu ko yabee na jàng ñetti kaamil fii bis ba waaw bu ko yëwul na jàng lam lam lam man rek jàngal ko boppam bu fekkee ne ku mënut a jàng la na na na wut mu jox leen mu jox leen addiya lu lu lu sedd seen xol waaw noonu nag feeg bis ba waaw waaw ñaan ci nag jàmmi mi waaw jàmmi mi na ñëpp ñaan jàmmi réew mi te it ma des na ci am yaakaar ndax yëngu-yëngu yi bari na cee adduna bi te yàlla nu ci ñu ngi musal kon nag nan gën a ñaan mu gën jën gën lu cee musal waaw nan nan ñaan jàmmi mi ban ñaanee suñu bopp ba noppi ñaan ñaan suñu borom wala nu gàttandul boppam xiir nu ci boppam xiir nu ci diine xiir nu ci sëriñ Tuubaa xiir nu ci lépp lu baax buñ ko defee ba noppi nag nan ñaan nan naan jàmmi réew mi waaw ñaan jàmmi lislaam nag itam waaw waaw loolu rek la maa ngi sant nag ñëpp sant bokki jullit yi sant bokki taalib yi sant bokki réew mi sant kilifa diine yi sant kilifa yi yi maa ngi sant ñëpp. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ci digalu sëriñ bi ni mu ko waxee rek amul dara luñ ci leeralaat ndax lépp leer na wax ji mbat na sëkk te ni mu ko daa waxee kilifaam yu tëddee rek noonu lañ ko koy waxee génn kàddoom gi moo gën suñ bindee kàddu ndax yëg-yëg biñ ci eh, ku dégg wax ji. xam ne wax la joxo ne ci biir xollat la ko sëriñ bi tibbee moo tax ku ko dégg ci sa biir xollee tab bi kon nag li ñuy def rek mooy ñaana ku mu yàgg fi lool te mu ànd ak wér ba yaakaar ji nga xam ne lislaam jëpp ak njabootu gépp am nañ ko coom te ñëpp maasu ju doyloo ko suñ borom dimbali ñu ba yaakaar ji lépp mu mottali ko nu kawe njortam ci barke Sëriñ Tuubaa ndax xam ne ne yitteem jëpp génnu liggéey Sëriñ Tuubaa amul jënd yite ju du jooju lii mu fàttali it ci liggéey it ñëpp déggal lañ ko seen bopp ndax waxoon na ne amul jënd yite ju moom mooy liggéey jàngukaay bii nga xam ne moom rek de soñcee naa le Serigne Touba yi nga xam ne bàyyi woon na ko fi muy liggéey bu rëy di somb bu mag boo xam ne nii mu ko waxee rek fanweeri milliard ak juróom-ñaar mooy li koy liggéey lépp ba waaye nag eh, sëriñ bi junj na ko nee na sëriñ Tuubaa dara bëriwul ci moom ndax eh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne mbay mu nangu xol yu nangoo ko gën a wóor te xol yu nangu nañ sëriñ Tuubaa te duñ ko gàn dootuñ ko gàntal kon nii mu ko bëggee rek ni la ni la ni la koy amee kon yàlla na lépp sotti ci kanamam ba ubbi ko ni mu ko yéenee ndax liggéey mu fi fekkoon eh, Cheikh Sidi Moussa tàmbali woon ko. fam ko bàyyi woon weer yi yëpp sëriñ bi ngi jël xaalis bu bëree bëri di ko ci def ngir àggali liggéey yooyu ndax waxoon ne balaa tàmbali benn liggéey daa fa seen liggéey yooyu sori ba fii mu ne nag ñu ngi ci cat la ndax boobaa léegi lim ci def bari na lool mu ngi bëgg mat ay milliards kon loolu na ko ñëpp xamee noonu ndax moom lu agsi ci moom rek day daal di jàll ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi kon nag dafa boole mottali naal yi mu fekkoon ak sumb naalu boppam leeral na it waxtu ko bëgg a tàmbali mooy ay bis gi mujj ci yor gàmmu yi bu demee ba jege si dana ko wooteel boppam taalibe bi yëpp dégg ko ngir xam ne itteel gim ko itteel ak ñor gim ko jor ndax ku dégg nim ko waxee rek xam ne ittee ma kon nag eh, ñun ñëpp waratuñu am jënd yitte lu weesu fexe ba laxasaayu ba nii mu ko bëggee rek suñ borom dimbali ñu ba bokk ca ña koy sottal ndax ba mu ko bëggee rek ci ko suñ borom dogal ba mu ko bëggee ci la ko suñ Tuubaa fekk si di jeexal ak di fàttali bis bi nga xam ne mooy bisu màggat gii nga xam ne moom la sëriñ bi doon woote muy dibéer eh, di fukki fan ak eh, di eh, fukki fan safar dëppoog ñaar fukki juróom-ñett ci weeru tubaab ci weeru Oktober wi ñu nekk dëppoo bisu di di bisu bisu dibéer kon sëriñ bi nga koy fàttali ñëpp di ko di ci soñ ñëpp ñëpp fekk si ko fi fii ci jàmm delluwaat ci jàmm te ñëpp itam li leen tax a jub muy jëfandikoo Sëriñ Tuubaa ñu dayee see ngërëmu Sëriñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh لمن الرحمن في bi أنني خديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكري من كل جالب إلى المناكر أذهب عني الله في قرن بصار